ville de Thiès ak ak ay communes d' arrondissement am ci ville de Rufisque ak ay communes d' arrondissement am ci Kër Massar newu ci Pikine ba mu des ville bi en tout li ci ëpp ci commune d' new ñu newuñu ci Géejawaay ville ak commune d' yi ci gën a bëri newu ci Ndakaaru new ci région de Ziguinchor newu ci association boobu tur baa fa ne waaye dara new fa kon ñu yéegal sénégalais yi nii